champion du monde ci jàng alxuraan karim mais gis na ay rakam ay jarbaatam ñu koy roy ci loolu di fa jël coupe du monde yi coupe du monde jàng alxuraanu karim Sénégal kii la ñu yi te kii am waaye jërëjëf jametu ahlu Quran su fekkoon dañu ni ñun kii jàng kon déedéet suñu programme bi fi feeñ su boobaa lu bari day yàqu waaye jëme ci ahlul quran li mu gëm moo di laa ilaha illa allah jullit yëpp benn la na ñit bu baax ak fu nu mën a baaxee mouhamadou mun shaba yàlla yàlla teral na mbokk yi ku yëkkati sa loxo yàlla nga def aljanna ginnaaw bu ñu def champion bi moom lu jàng alquran mouhamad bismillah walaw aaya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 متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا شيخنا الدكتور محمد حبيب الله حسين جزاكم الله خيرا مؤسسة دار الإيمان جزاكم الله خيرا سيركو ñoom ñi ko génneel daaw mu dem ren yal na yàlla fay ko lii leen gëm ak Alxuraan takbir macha allah yal na ko yàlla gunge télévision yi ñoo koy xëccoo yi ba tey ji benn télévision moom moo ko invité Mor Fandem nii ñu koy gungeeg suñu xol Mouhamadou Moujtaba yal na yàlla taxaw la yal na yàlla teral la waaye ki jàngal ji docteur Habiboulah Sy moom itam yal yàlla gën ko taxaw ci alquranul karim nii rek la ñun lii moo sax ku gañe leneen jëlal ku gañe alquran ñëwal ci ñun incha allah